ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke Sylla mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara dimb bi ñëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci philosophie julli mu ne woon tey bu nu yàlla baaxee nu ñëw ci njàpp lu tax nuy jàpp walla philosophie jàpp njàpp wolof a ko tuddee njàpp waaye jëlewul baat bi ci làkku arab daf koo baatale boppam ndax arab ba muy wax njàpp moom ndab la ndab la fa tudd alwadu wala alwudu waaw wolof moom daal di jël baat bi tudde ko jàpp beneen baat ba mu tudde ko tiim daati ci jàngale ñaari yëf li nga tiim ak li nga jàpp ku la doon wax tiimal quatre millions ak jàppal 4 millions jàpp 4 millions bi moo lay gënal tiim 4 millions kon baat bi damaa bëgg wax rek olof moom tey jëlewu ko ci làkku arab ci làkku boppam la ko jëlee borom subhaanahu wa moo doon jàngale njàpp ci suuratu almaida almaida ci pénc mi mooy sunuy añ wala ndaw ko ndaay imaam Ablaye Ndaw yal na ko yàlla yokk wér bu ñu añ li ñuy lal napp boobu mooy almaayida bu dee ca tubaab ya mooy taabal ji xaw ma taabal à manger lañ ko wax xaw ma yow mel noonu <laughs> waaw kenn mus koo gis rek mu ngoog almaida loolu lay tekki mooy bi ñu bi ñu fabee bool bi taaj ko bi ñu taajee bool bi ni ni bool bi bëree ay ingrédients nun la almaida saar wi bëree ay ingrédients waaw ndax ca la banu Israël waxoon Moussa ne ko wàcceel ñu maidatan mina sama tey dañoo bëgg añ ceeb bu jógee asamaan ceeb bu jën ah mu ne loolu ñu ne loolu lañ bëgg tey suñu borom na tey ngeen xam ne malaaka yi mën a togg ci saar woowu lañ jàngale lañ jàpp mbokk yi ñu ànd jàng njàpp maa ngi yéen sunu borom tabaaraka taala def ni yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi ma gëm yéen ñi ma gëm te gëm sama téere bii di alxuraan gëm sama malaaka yi gëm àllaaxira gëm dogal bu neex ak bu naqari gëm téere yi waaw yéen laa bëgg a waxal yaa lazina amanu benn charte ngoog ci surutul imaan woote na kon borom bi allasina amanu la woo nan góor-góorlu ba bokk ca nag waaw teg na ca charte ba kon mu yàlla looy santaane mu ne damaa bëgg a jàngale njàpp damaa bëgg a jàngale njàpp ñu ne acca mu ne isaa xumtum bu ngeen jógatee ila salaati jëm ci julli wala ila salaati jëm ca jàkka ja amuleen njàpp amuleen ngànt isa xumtum ila salaati fekk amuleen ngànt amuleen njàpp boo amee ngànt teggil na la li muy bëgg a wax bu la fekkee comme njàppit teggil na la li muy bëgg a wax sunu doyen Hadj Moustapha génne na dañoo min ci penc mi ma yeesal nee na njàpp lu tëjut yeesal ga moom déggu ko <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér Hadj Moustapha Guèye sunu doyen la ci liggéey bii tabaarakallahu moo ko Hadj Mokhtar Cheikh yàlla na yàlla yokk leen wér waaw ab groupe la ñu woon ndeysaan ñoom euh, sànq ñoom ci lañ bokk waaw yàlla na yàlla tabaarakallahu yokk ñëpp wér suñu doyen la ñu ndeysaan ba ca ndaw kunda ba Moustapha Ndaw ak gaaji Ousmane Sarr waaw <laughs> gaaji Ousmane Sarr moom moo doonoon oustaz su sama yaay ndeysaan da ko daan déglu lu bare bare bare ndeysaan waaye daal isaa xumtum bu ngeen jógatee ila salaati jëm ci julli jëm ca julli ga wala jëm ca jàkka ja fekk amuleen njàpp wala amuleen ngànt mu ne am ne kaay leen ma jàngal leen njàpp fax si loo wujuhakum sëlmu leen fax si loo wujuhakum sëlmu leen luy sëlmu mooy xar kanam bi ngay ngay ragg bët yi bakkan bi lex yi jëbi sikkim bi loolu ngay raxas waaw ne yàlla li ma yendoo xool te normalu tuubal naa la ko li ma yendoo wax te normalu tuubal naa la ko hmm. waaw tuubal naa la ko njàpp yaa ngi jàpp nga njëkk a sëlmu maanaam bi la yàlla jàngal njàpp yonent bi aleyhi salaatu salaam dana ko mottali waaye bi alquran di jàngale njàpp nga sëlmu moo tax ñooñu ci pénc mi di wax ne du ñu dellu ci sunna si yonent bi ci alxuraan la ñuy yem seenum njàpp danañ bàyyi sunna yu bari te ku boole ñaari sunna te tey ko bàyyi ko dañ lay jàppee ku ñàkk teggin kon ndekk kiy jàpp day tàmbalee sëlmu waaw bu dee jigéen joo xam ne dafa wutoon ay pomaat pomaati xay na xeesal walla yooyu ba deru xar kanamam bi bokkut ak ba mu judduwaale woon ndeysaan malaaka yi dañ koy yërëm ndeysaan mooy raxas ci der boobu te der ba fa nekkoon mu ca daan raxas jóg na fa nga xam ne dentitéem léegi dentitéem foto bi ci nekk bokkut ak photo ba ca nekkoon xam naa lijjanti yu bareeg tuub lool <laughs> mooy tax ñu ñu nangul ko ko ndax penc mi sunu dentité yi nogay rek laa mas a gis mu àbb bàjjan faati dentitéem bàjjen faati almasa d'identité mu ne ko la xew mu ne dañuy aaye fële jaay dëwlin te amoo d'identité seetetetet bala ca mujj mujj ca diggante mooy gendarme yi ndeysaan mbokk yi kii jàpp li mu njëkk def mooy day sëlmu faghsilu wujuhakum sëlmu leen waaw waaw li nga yendoo xool te xool lu wut li nga yendoo wax te wax lu wut waaw ma tax boo sëlmoo dese nga leneen ci ragg te mooy gallax ndiku mooy ma nga ca biir incha allah gallax ba ko yónente ba jàngale waaye daal aji jàpp ji sëlmu na bi alxuraan di jàngale faxsilu wujuhakum sëlmu leen wa aydiyakum ilal marafiq ragg leen seeni loxo ba ca conc ya waaw ragg leen seeni loxo ba ca conc ya hmm? waaw waaw ragg leen seeni loxo ba ca conc ya waaw faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq yaa ngi ragg sa loxo bi ca cat baaram ya ba ca conc ya droite teg ca gauche waaw lu tax ngay ragg loolu mooy dañ laa bëgg a wax ne sa kër gi li muy yaatu yaatu boo génnee àdduna Sénégal gi nga dëkk li nga fii moom mooy benn terrain boo xam ne yaatuwaay baa ngi toll ni sa cat baaram bi ak sa sa sa conc li lu toll noonu nga fi am moo xam yoof ngay tëddi moo xam pikin ngay tëddi moo xam caaro yi ngay tëddi moo xam yan armeel ngay tëddi waaye boo demee tëddi fa bi moom doo am quinze sur dix déedéet doo am dix sur quinze déedéet la trois cent kii hectare waaw allahu akbar mbokk ma faatu na ñëw ci kër gi kër ga toll na ni càlle kër ga toll na ni càlle dara manqué wu fa dara manqué wu néeg ba rek toll na ni sama kër néegam tol na ni sama kër saal ba moom tabarkal la waaye ñu génn ñu wàcce ko lal ba génn ko néeg ba génne ko kër ga génne ko dëkk ba génne ko région ba dem ak moom ba feneen wax pax mu ndaw def ko ca pax ma ñibbi toggi ceeb lekk loolu ku ku ku ko njàpp jàngalut sam njàpp du mokk ba mukk ah, bi ngay raxas sa loxo bi hmm. ca ca cat baaraam ya ba ca conc ya bi ngay raxas sa loxo bi bi ngay raxas sa loxo bi yëgal na loxo bi defuñu woon ko pour jël jël loo moomut moo tax su mokkoon cré yu noppalu bu njàpp mokkoon of nag noppalu hmm? waaw waaw bu njàpp mokkoon cré yu noppalu of nag noppalu ndax kenn du jël loo moomut ndax li nga moomut boo ko jëlee bis ñëw nga bàyyi fi li nga li nga moom li nga moomu doxi noppi wax naa ne ci koor bu koor ñëwee daf lay tere li nga moom ak ah, kon kay li nga moomu doxi noppi waaw waaye ñu koy génn àdduna it dafay bàyyi lim moom lim moomu nag lim moomu nag ñu wàcce la sa lal bi génn la néeg bi génn la kër gi génne la koñ bi génne la dëkk bi waaw sëñ Mbàkke sil nee na na ko yàlla yokk wér ñóbbu la fa ba fa dëkk ba yem ba fa dëkk ba yem waa ximpax ba mu xóot dugal la ci biir dem ñibbi toggi ceeb mbokk yi njàpp bi nit ki sëlmoo dafa ragg loxo yi ba ca conc ya waaw wamsahu bi ruusikum mu ne masaaleen seen seen bopp yi bi mu ne bi nag am ñu ne masaaleen lenn ci bopp bi bu ne woon wamsahu ruusakum dañ koy ragg waaye bopp yépp la waaye bu ne wamsahu bi am na ñu ne bi boobu mooy loo ci masaa mat na ënkaaru bopp bi walla deux quarts wala genn wàll mbaa yu ne demee masaa bopp bi nga teg nga def loxo ndox ci sa loxo yi waccax ndox ma danga ciy def ndox ba noppi waccax ndox ma teg sa ñaari baara sa ñaari loxo yi ci wetu jëbi fi kawar gi tàmbalee dilu ko ba fam yem ca ginnaaw jële ko fa dellu bu dee jigéen ju def kawaru boppam dana noppalu noppali bokkam bu dee ku ca defoon kawar yu ca bokkut sonn sonali bokkam mhm. moo tax aleyhi salaatu salaam di aaya jigéen mu léttoo lu dul kawari boppam hmm? waaw waaw nee na jëpp jigéen joo xam ne def nga ca sa bopp bi kawar yu ci bokkut na kawar ya toll na la say bàkkaar di toll ayuma mraatin zaadat fi rasiha shaaran wa laysa minhu fa innaha zuurun tazidu fii jigéen ju def ci boppam kawar ju ca bokkut kawar ya nam toll leen par leen fil par fil nun la say bàkkaar toll te léeg-léeg nga dem gis ko dem fa ñuy jaaye yooyu jënd ca ñaari paket ba ñett mbaa ba ñeent <laughs> yàlla nu yàlla yërëm hmm? waaw mu ngoog mbokk yi maa ngi ci jàpp bëgg nu jàng ko ñun ñépp te mokkal ko waaw bëgg nu jàng ko ñun ñépp te mokkal ko sunu magum daara sunu sëriñ eh, njool fuuta nun lañ koy wax sëñ Babacar si ibnu Xaaj Abdul Aziz Dabbaax ku faral di jàngale yii la ndax bu yii mokkul du nu dem waaw yii su mokkul du nu dem te pédagogiquement di bëgg a julli di jàpp waxoon naa ne li muy tekki mooy professeur euh, inspecteur Arfan mooy arfan dafa dugg ci classe bi def matière ma dugg ci war a def matière am na nu may def noonu su ma ko defee xale yi ci matière u professeur arfan la ñuy nekk mu am nu may def ñoo xam ne danaa leen jële ci matière u professeur arfan indi leen ci sama matière loolu ñi jàngalekat yi nga xam ne ay pédagogue lañ xam nañ loolu nuñ koy defee parce que danañ ci ñëw ma nga ca kanam nit ku nekk ci dara nga bëgg koo jëli ca loola indi ko ci li nga nekk waaw loolu mooy jingal yi ngeen dégg ci ci rajo yi ak ci télé yi jingal yi ala xaal waa ji sunu borom nee na faxsulu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usikum mu teg ca nag wa arjulakum ilal kaabayni am ñu ne wa arjulikum ilal kaabayni ragg say tànk ba ca conc ya waaw ragg say tànk ba ca conc ya waaye mbokk bi borom bi jàngalee njàpp ba noppi teg ca tiim ba noppi hein ndeysaan daf caa teg lu lu am solo lu mu ca teg maa yuridu llahu li yajala aleykum min xaraj yàlla mu ne damaa bañ ngeen taq yàlla mu ne damaa bañ ngeen taq bëgguma ngeen taq maa yuridu llahu li yajala aleykum min xaraj isan yàlla mu ne bëgguma ngeen taq walakin yuridu li yutahirakum daf leen a bëgg a laabal leen a bëgg yi ngeen yor la bëgg ndab yi set wala yutimma nicmatahu aleykum ndax mu man leen a matalal xéewal yi nga xam ne ku ndab set ñu tibbal la laxalakum xay na su seen ndab setee ñu tibbal leen ngeen xam fi ma jaar ak tas taskuruna da ngeen ma sant laa <laughs> ilaha illallah imaam Ablaye Ndaw nanu déglu li yàlla jàngale fii bi mu jàngalee njàpp ba noppi jàngale tiim ba noppi lim jeexale waxam jure ji maa yuridu laahu li yajala aleykum min xaraj waaw yàlla mu ne bëgguma ngeen taq hmm? waaw bëgguma ngeen taq allahu loo bëgg loo bëgg maa yuridu laahu li yajala aleykum min xaraj loo bëgg walakin yuridu lii la bëgg lu mu bëgg li yutahirakum ngir mu laabal leen laabal leen waaw ndax dañoo yori ndab nopp ndab la bët ndab la xol ndab la ndab li nag nun ñépp a ko tàllal yàlla muy ndabul mbàttu ñun ñëpp ku xëy bëgg mu defal la ci ñun ñëpp mu ne bu ndab li seetee ma defal leen wala yutimma ni'matahu aleykum allahu akbar e, dong bu yalwaan bu yalwaan bu yalwaan añ mbaa bu yoree pot bu setut wala pot bu xomaag wala pot bu taq yaayu daara ji da koy wax demal raxasi pot bi te ñëw ma defal la ci donga li dem ci robine bi raxas pot bi ñëw tàll ko mu defal ko ca pot boobu dongo daara bi di tàllal pour ñu defal ko ci mooy sunu xol yi mooy sunu bët yi mooy sunu dënn yi mooy sunu loxo yi ku set la ndab yàlla defal la ku set la ndab yàlla defal la ku sa ndab mu sant la nga raxasi ko raxas googu nag mooy njàpp hmm? raxas googu mooy njàpp allahu akbar yàlla na mokk mbokk bi yàlla jàngalee njàpp ba noppi daf caa teg boo amul ndox nga amee ngànt ba amul ndox nga tiim ba mu noppee ca ñoom ñaar nag la ñu wax lim jublu ci njàpp ak lim jublu ci tiim ñaar la maa yuriidu ak yuridu maa yuridu ma ngay dàq min xaraj yuridu ma ngay saxal li yutahirakum wala yutimma ni'matahu aleykum gis nga pénc mi ndekete yooyu dafa tax xéewal yi aja ci asamaan si wàccetut wala wàccetut nam daan wàcce waaw wàccetut nam daan wàcce léegi pénc mi dank fanaan la wax lu wax wax lu juunu waaw ak kuñ ne baax na yaa ngay wuti lu wan nit ñi ne baaxut mhm, kuñ ne baax na yaa ngay wuti lu won nit ñi ne baaxut waaw mu am jëntukaay yu ne ci penc mi ñoom internet mi wuuf leen waaw xane bu nit yu baax na rek yaa ngay wuti ca waxi daawam ya waxi daaw jéeg ya waxee woon ca ginnaaw raay waxee woon ca nangam lépp pour wan nit ñi ne baaxul mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot sunu bindu tey njàpp la woon waaye du woon nu ñuy jàppe déedéet njàpp la woon mooy lenn ci philosophie jàpp lu tax ñuy jàpp bu ñu dundee ba lëndi yàlla na dund ba lëndi te weesu ko ñu indi jataay boobu nga xam ne mooy tege ci lu tax nuy jàpp waaw ndax vendredi ak samedi ak dimanche dañoo am seen jataay yi bopp ko suñ mbàkke di waxe ci euh, jataay bi albidaaya jërë ngeen jëf ngi jéglu soxna yi di jéglu sëriñ si di ñaan jàmm ci réew meg réew bi ko war sunu mbokk yi ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar yi ci tubaab firiñ fàncalan ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi waaye ak suñu àndandoo bii di C3S yàlla yàlla defar ni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.